jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur euh, ma fatihol bi Bichri nduy nañu leen ziar leen di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen wax rek léegi léegi ma dégtal leen la gën a fës ci seen ay xibaar. comme ni ma leen ko junjee nag mbokk yi ak xaritu téléspectateur yi rek dañu koy daal di doore ak ponk ba gën a fës daal di wutali ca dëkk boobu ñuy wax Jurbel daal di wax nag taw bu metti bi nga xamante ni am na fii ci Sénégal waaye it njeexintal ba mu am ca dëkk boobu di Jurbel surtout nag foofee ñuy wax Réfane dañu gis ni kat ni ki démb ci guddi maanaam ñu benn yoon ndax ndox ma nga xamante ni dafa daal di ñëw rek ci seen ay biir kër daal di koy muur mu nekk tolof tolof bu metti bu nga xamante ni ñu nga koy dund askan bay yeewu yeewoo foofee nga xamante ni mooy daal di reefaan ci noonu nag maire ba daal di àddu ci lu ni mel daal di xamlekat jamono ji ñu taxaw tembe ñu ngi dund lu méttee métti te amuñu nag koppar bu nga xamante ni war na mën a dimbali ñi nga xam ne ñoo am ay jafe ci lu ni mel la muy sàkkukat mooy ni maanaam taxaw na temb tàllal ay loxoom di woote ku nga xamante ni rek war nañu ko mën a dimbali ci lu ni mel surtout ka nga xamante mooy gouvernement bu Sénégal ci nawet bi nga xamante moom lañu nekk ci noonu rek xam naa dañu daal di wéy ak lu ñeela maanaam fukk ak juróom-benn ci ay association maanaam kuréel yu nga xamante ni dañu nekk fii ci Sénégal ci Afrique ak bitim réew nar a amal nag ab ndaje tey fas yéene waxtaane dogal bi nga xamante ni dañu gis ni gouvernement bu Sénégal daf ko fas yéene jël ñeel lool ñuy wax code de communication électronique du Sénégal maanaam mu nekk lu nga xamante ni gouvernement bu Sénégal daf ko daal di adopté ci conseil des ministres bi nga xam ne moom la ñu weesu woon ci juróom-benni fan ci weeru juin atum 2018 bi nga xamante ni moom la ñu weesu loolu nag ba ñu ko xamle kat ñi nga xamante ni ñooy fukk ak juróom-benn ci yooyu le kuréel la ñu xamle kat mooy ni bileb dogal bu ko gouvernement bu Sénégal daal di yembalee rek dafay daal di da naxasal loolee ñuy wax article 27 article 27 nag la muy undu maanaam dogal bi mu jox bépp doomu Sénégal mu mën a am accès ci loolu ñuy wax ay application ci seen ay téléphone ak internet chat lu ci mel ni whatsapp facebook messenger skype ak viber ak yu ni mel waaye it yemul foofu lam ca xamle kat dafay fas yéene jox dogal loolu ñuy wax ARTP maanaam autorité de régulation des télécommunications et post maanaam dogal bu nga xamante ni waaye it ñi nga xamante ni ñooy opérateurs yi ngir ñu mën a am ab gët ci liggéey bi nga xamante ni askan bi ñu ngi koy liggéey ci whatsapp facebook viber ak skype ñu daal di cee xam ne nag loolu dafay indi benn taggate m liggéey bi nga xamante ni ñu ngi gis ni ñenn ci ñu ñuy wax entrepreneur yuy liggéey ci lu ñeel wàllum numérique ñu ngi fii ci mim réew ci ni ñu ko gisee ñi nga xamante ni dañuy jouer ay téléfilm di ko dugal ci li nga xamante ni mooy YouTube bi ak lu ni mel waaye it du fa yem nax nag dafay indi ay jafe-jafe ci loolu ñuy wax émergence des médias en ligne mu nekk dogal bu nga xamante ni nag gis na ni république maanaam a dëkk bi di Sénégal ak gouvernement a moo fas nag nag ndaje bi ñuy amal niki tey ngir rek addu ci ginnaaw ki nga xamante ni mooy gouvernement bu Sénégal mu mu a xoolaat boobile dogal la ba tey ci xibaar ci gàttal ñu daal di wax ci lu soxalit banque mondiale ak gouvernement bu Sénégal mi amaloon nag niki démb ab ndaje doon xaatim nag lu ñett lu toll ci ñetti accord mu nekk accord yi nga xamante ni buñ ci xamle mooy ni kat gouvernement bu Sénégal dafa nekkoon lu ko soxal ci programme Sénégal émergent ci noonu nag dañu xam xamle banque mondiale dafa daal di dugal fii ci réew mi lu toll ci téeméer ak fukk ak juróom-ñett ci ay milliards daal di koy jëmale nag ci ñetti secteur yu am solo bu ci mel ni loolee nga xamante ni moom la ñuy wax maanaam ci lu ñeel eau ak maanaam assainissement mu nekk lu nga xamante ni ci bu ñu sukkandikoo ca nga xamante ni moo fekkee woon lu ni mel muy jëriñ bi ñu dénk lépp lu ñeel wàllum koom finance poste ñu gën ko xam ci Amadou Ba ci teewaay ki nga xamante ni mooy moo représenté banque mondiale bu Sénégal banque mondiale fii ci Sénégal ngeen baal ma ñu gën ko xam ci Louise Corde ci noonu nag nam ca xamle mooy ni maanaam lu toll ci soixante dix cinq milliards ci sunu ay koppar daañu ko dugal ci lu ñeel ndox ak assainissement ngir rek di di lijjanti bi askan wi di dund ci wàllum ndox ak li nga xamante ni mooy akop calte ci noonu it wéyal nañu maanaam koppar yi du fayam daan ko dugal ci yu ñeel njàng meeg njàngale mi ndax nag ndaw yi war a a am njàng mu mucc ayib te ànd ak la nga xamante ni mooy qualité ñu dogal ca nag koppar bu toll ci fanweer ak ñaar ci sunu fanweer ak ñaari milliards ci sunu ay koppar waaye fayam daanu xeex lu ñeel loolu ñuy wax lutte contre les changements climatiques maanaam jafe-jafe gi nga xamante nemmeeku nañ ko ci jaww ji ak lu ni ba tey ci wàllum xibaar bi yoon dañuy wax ci lu ñeel wàllum politique wax ci njeexintal bi nga xamante ni gis nañ ko ginnaaw bi yoon bu Sénégal jëlee ab dogal dagal ko ci ndodd ki nga xamante ni mooy Xalifa Ababacar Sall di maire bu Ndakaaru maanaam juróomi atu kaso rap waaye it daal di koy amande ci lu toll benn milliard bu toftal juróom-ñetti téeméeri million ci sunu ay koppar ci noonu nag ñenn ñi ci ñi nga xamante ni ñooy ay avocat lañ ca xam ne mooy kat dañu daal di am mbetteel ci waaye du tee daanu woyal lépp lu nga xamante ni mooy seen liggéey ngir rek moom xalifa Ababacar Sall mën a samp ndëndëm ci élection présidentielle yu ñuy dëgmal ci atum 2019 naka noonu nag xam naa dañuy daal di teewlu ki nga xamante ni moom la ñu wax Ciré Clédor Ly di avocat di yenn di kenn ci avocat yu xalifa Ababacar Sall ci micro Mamadou Cissé. bon li nga xam ne cour d'appel décidé na ko bettul kenn ñëpp xam nañ ne que bi tey jii. politique la ñuy def justice bi tey li nga xam ne que moo leen soxal moom moo di fexe élection li jëm képp koo xam ne que mun nga indi ay jafe-jafe pour ñi toog tey jii euh, mën a génn ñeneen remplacer leen que loolu bañ a mën a am képp koo xam ne que candidat nga su fekkee mun nañ la ngembal dinañ la ngembal ba mën naa maanaam indi la en justice ñu mën la condamner pour que ñu mën la génne ci élection yi wante li ma leen di yëgal. moom moo di que mbir mi jeexagul cour d'appel rendre na décision cour d'appel jéng na li jéng la ndax cour d'appel dafa di maanaam euh, kuréel boo xam ne day atte wante am na kuréel yi ko gën a kawe te kuréel yooyu nee nañ ko ne lii caaxaan la lii yëfu naa fekk la kon boog tey ji dafa waroon dakkal mbir mi génnee Khalifa Sall kaso wante li mu tànn cour d'appel moom moo di fexe ba ñi nga xam ne que ñoom ñoo ŋànk ñi réew mi la ñu bëgg ñoom ñoo ñoo ñu mën koo am wante dinaa leen yëgal ne que tey ji xeex bi jeexagul ndax ci xeex bi yàlla mën na dogal xeex bi wéye wéye wéye wéy ba xalifa Sall même bu fekkee ne que kaso la nekk mu mën a nekk candidat à la présidence de la République kon xam leen ne que bu leen foog ne que tey ji condamné nañ li ñu condamné li ñu ko ne woon dëggal nañ ko rek que mënatul nekk président la République kon boog même nit mun na nekk kaso ba pare nekk nekk candidat à la présidentielle loolu lu jaraleeral a la léegi nag comme que justice bi ñoom wane nañu seen kanam moom moo di que jaruñoo gëm jaruñoo gëm même bu fekkee nekk am na ci magistrat yu jub nañu xam ne que justice bi dans son ensemble en tant qu'institution dafa jël option moom moo di lan moom moo di que mbubb la mbubb sol mbubb boo xam ne que maanaam daf fi toogal ñi nga xam ne ñoo ngànk réew mi loolu nag dafa domage ndax nag ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Mamadou Cissé mi taataanoon yooyu le xibaar xibaar ngeen baal ma noonu lañ koy wéyee ba tey sax ci wàllum politique wax bi yoon ci lu ñeel moom Karim Meïssa Wade niki démb nag la cour suprême di jël ab doon càmbar niki démb ci ngoon li nga xamante ni mooy ay dossier ba xam kat moom Karim sa Wade war na mën a sampap nëndam fii ci Sénégal ci lu ñeel maanaam élection présidentielle yi ñuy dëgmal dañu gis ni kat cour suprême dafa daal ne ñett nag nag ci lu ni mel la maanaam daal di koy dàq ci noonu nag ñu daal di xamle la tax sax nag mu daal di def lu ni mel la moom cour suprême mooy ni kat boobu la dogal daf ko daal di basé rek ca la nga xamante ni moom la ñuy wax article onze de la constitution bu Sénégal waaye it yamuñu fa lañ ca xamle mooy ni kat maanaam direction général des élections jëloon moo daal di njëkk a jël nag dogal bu ni la daal di dàq xalifa ab euh, ngeen baal ma Karim Meïssa Wade ci élection moom la ñu dëgmal ginnaaw cour euh, da cour suprême bi nag moom mi nga xamante ni mooy ancien ministre d'état ñu gën ko xam ci Karim sa Wade lam ca xam ne kat mooy ne ma nga foofee ca Qatar ca Koweït dana wéy nag ba tey di ñaxtu waaye it daal di dugal ay recours ci yeneen juridiction internationale yi nga xamante ni moo fi daal di nekk ci noonu nag ngir daal di buur rek la nga xamante ni mooy xibaar yi ci gàttal ñu daal di koy jeexale ak politique ba tey daal di wax nag maanaam ki nga xamante ni mooy Khalifa Ababacar waaye it Karima Meïssa Wade bi nga xamante ni dañu njort jamono ji ñu taxawee tembe ni rek du ñu bokk ci élection présidentielle yu ni dëgmal ci atum 2019 ci noonee nag ñu xam ne ci jamono yooyu moom président Macky Sall ak ay jagañaaleem bokk ci benn bokk yaakaar dañu fas yéene ba tey di wéyal la nga xamante ni moom la ñuy wax seen campagne de parrainage moo tax nag ñu daal di sampap laaj jëmale ko ci ki nga xamante ni moo def jàngat bu mu bu ni mel muy Mamadou Cissé ñaar ñi kat nga xam ne ñu am taxawaay lañ ci politique Khalifa Ababacar Sall ak Karim Meïssa Wade doon ay candidat naam wala déet ñu teewlu ko. juróomi atu kaso benn milliard bu toftal juróom-ñett ci suñuy koppar lii mooy daan bi dal ci kaw xalifa Ababacar Sall njiitu bokk moomeel bu ndakaaru bile dogal tukki ci àtte bi ñu ko doon àtte ci mbirum caisse d'avance bu bokk moomeel bu ndakaaru donte àtte bi bariwoon na coow ba sax. am yenn ci ay kuréel yu mag yu nekk ci Afrique wax ni ak ak yelleefu Xalifa Ababacar Sall sàmmuñu ko benn yoon ci ate bi waaye dogal bi yoon jël tey mel na ni xajamal na candidaturu njiitu bokk moomeel bu Ndakaaru jëm ca élection présidentielle yi ñu dëgmal ca wet ga Karim maysawaat Wade mi yoon làqoon jant bi ginnaaw tongal bi ñu ko tongaloon ci alal gu lewul ginnaaw ga njiitu réew mi may ko njekk ba mu dem réewum Qatar ci weer yi ñu génn yoon dàqoon candidature am ay ñooñam dugalaab recours tey yoon dàqaat na bile recours mu mel ni kon candidat wu PDS bi narul bokk moom it ca élection présidentielle ya élection présidentielle yooyu njiitu réew mi président Macky Sall ak ñamu àndal ca Benno Bokk Yaakaar su dee ñi ànd ak xalifa Ababacar Sall ak Karim Meïssa Wade xamaguñu fu ñuy taxaw waa Benno Bokk Yaakaar ñoom mel na ni pare nañ ba noppi ndax dañ jëm ci ay élection yu PDS dul bokk ak ak genn wàll xaaju parti socialiste loolu su amee digguleet ci senegaal Sénégal ñu seetlu ni saa suñu jubee ay élection coow li bari lool mu mel ni ku nekk ci candidat yi li ñor askan wi soxalul la donte ku ne ci ñoom dina jéem a tëral ab programme boo xam ni suñu ko fale mu fàtte ko lu ci mën a am réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te war nañu bàyyi xel suñu fi jógee ñi ñu koy bàyyeel te sax nguur ak daraja yàlla moo koy joxe moom yàlla subhaanahu wa taala wax na ci alquraan ne qul allahuma malikul mulki tuutil mulka man tashaau wa tunziul mulka mi man tashaau wa tuizzu man tashaau wa yudillu man tashaau bi yaddika al xayri innaka ala kulli cheyin qadir yow yàlla yow yaay boroom nguur yow yaay jox nguur ku la soob te yow yaa koy xañ ku la soob yow yaay boroom daraja te yaay jox daraja ku la neex yow yaay toroxalit ku la neex ngëneel mu ngi ci sa loxo yow yàlla mi nga xamante ni yow yaa nekk ci biir kon ko bu baax a baax moom Mamadou Cissé ci jàngat bu mucc ay bopp mu daal di def ci lu ñeel wàllum politique taxawaay Khalifa Ababacar Sall ari ak Karim Meïssa Wade kon nag mbokk yi xarit lii moo daal di laflaaj li nga xamante ni mooy seen ay xibaar ci gàttal di leen wax nag la koy toftal mooy seen xibaar yu ñeel wàllum jaww ji mooy seen journal météo di ko jaajëfal moom Malick mi nekkoon ci caméra bi waaye it cant ngërëm ñeel na ko moom sëriñ Serigne Mor Niang Bichiri mi nekkoon ci réalisation ba ca régie ba di jox daje rekk ba beneen yoon ci yeneeni jotaay xibaar قلبي وجسدي عبدت رب العالمين

ربي يقول في الخلاء ربي يمعان شارقا للسفد ناديت ربي الكريم بكتب